am na man la Ndeye Amy Gueye dëkk Diougnane Xombal di représentant Ndada Mbaye Yàlla ndax moo bëggoon a teewaay dafa am dese léegi nag man na rakkam man la léppam ndaxte yàlla may fu mu mën a taxaw man Ndeye Amy mën na faa taxaw ndax ànd naag sama mbooloo te ay xale lan te ay sën lan te ñëpp a bopp daan jóor ndax ñun tamit ay xale waaye dañoo nekk ay jaboot te suñu sañoon suñu njaboot ñu jàppale ñu jàppale suñu bopp na ko jàppale suñu njaboot ñun nga jàppale kon nag suñu sañoon suñu waa kër bu mag ñu jox bopp Dame Diop fas yéene koo jàppale sànnil ko suñu carte mu jël mairie Diourbel 2022 ñu jàppale ko mu jël mairie bi jàppale na ñu tam Gaynde ñoo nekk nii président moo nekk nii mooy président Garaas Gaynde Jakarta man maa topp si moom après man Cheikh di ngeen xamal ñu ñëpp na nga ñëw waa Garaas lépp na nga ñëw waaye ñaar bu ñëwee nag ñëpp ñëw nañ ñoo ngi nekk seen ginnaaw daam dina xamal ne li nga bëgg da ko am li nga bëgg ndax bari na mbooloo te loo bëgg loolu daan na si jàppale. ki nga xam ni moo waral jotaay bi di soxna Ndate mi nga xam ne su ma neexee sax nungu ko ndax euh, sama maam mooy borom këram. mu fekk fi nag euh, ñu bari ci mbokk yi. yoo xam ne nii ñoom fekk fu kenn dugal loxoom rek ñëpp ànd ci ak ñoom dugal fa seen loxo. Euh, fekk fi itam ñi nga xam ni nii fu ma jëm ñu ànd ak moom ñooy soxna seeni joom nga xam ne man mooy sama responsable comité. ànd ak soxna seeni joom mi nga xam ne mooy sama responsable comité ci Cuuneen ànd ak soxna ndey Maane soxna Ndeye Maane Thiam nga xam ni moom itam responsable politique la mi ngi jóge kër sëñ ma yi. seen loxo ci kaw. fii nag yàlla dafa dogal. Euh, daam daf fi yàgg ñëw yàgg fi joxe ay taraanga nu yàgg koo xam nu bokk nag Cheikh Moustapha Al loolu man moo ma engagé ci daam ba xeex bu mu dugg dinaa ci ànd ak moom ba mu jeex tàkk te dina ci am daam nu bàyyi xel na ci lenn tàccu neex na lool ki nu bëgg a jox dëkk bi muy daam benn yaru na am na xam-xam te mi ngi liggéey te kenn ku ci nekk yaakaar naa ni ak loo gàtt gàtt ab ab nopp war nga dégg ñu ne daal mi ngi def nangam mu ànd koog nag ay directeurs yu bari ku mel ni Pape Modou Fall ak Sayer Diop ñu baree baree bari ñu ñu ànd ak ñoom di ko jàppale pour ñu mën a jël maire bi. loolu su amee nag ñun ñi nga xam ne ñoo bëgg dëkk bi changé war na noo jël suñuy carte jox ko Dame jóob mu gagné municipalité bi.